ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca sëñ bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ bee ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju fa barab bu mag ba nekk fa tuur allo Dakar nag gàcce ngaalaama xam nga lu tax allo Dakar mooy caatum télé yi ca nag moo cëpp mbooloo xam nga lu tax dafa am barke ñaata doomi aadama ñooy xëy di wax allo ci Sénégal ak bitim réew loo looloo tax allo Dakar man gaa yi waaw. kon allo Dakar daal ñoo ànd ak li nga xam ni mooy. xelkoom allo Dakar daal moo ne ci bë moo am bës moo ànd ak xelkoom ànd ak Cheikh Amar ànd ak Cheikh Saliou Mbacké ak Serigne Saliou Thioune. ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju fa barab bu mag ba nekk fa Tuubaa